ba tey actualité la toog boo xoolee euh, li nga xam ne Adama Fall parce que yow waxtu bi léegi mu xool ñu damay bàyyi tàmbalee ci yow rek comme ça après ñu la mais tuuti parce que Abdou Mbow euh, bind na lettre ki nga xam ne mooy docteur Cheikh Tidiane Dieye ngir mu leeral motif bi nga xam ne moo waral ñu dàq ko Abdou tant que député il a question écrite la mm. mais question écrite bii mm. ci Guy Marius Sagna laa ko doon xaar man Adama Fall. mais ah ci moom laa ko doon xaar. est-ce que amul benn yéen loolu day wone defal ndànk rek. loolu day mhm. wone ni rupture am na. Mhm. parce que def na question écrite par rapport à aux 9000 logements. Mhm. sur la préférence nationale. parce que nee na chinois yi lañ ko jox. j'applaudis parce que mi ngi toujours ci logique mais bëggoon naa tamit mu defaat beneen question écrite concernant ça parce que député bi moo am droit boobu saytu euh, gestion wu euh, pouvoir bi. n'est-ce mais man su ma sañoon ci moom lay jógee pour wane rupture bi. Mhm. parce que bugguma mu soppi. Mhm. doxalin bi mu doon doxale benn benn démb ak barke démb. Mhm. parce que ko soppee rek dañ naan fi mu bokk ñu accéder au pouvoir donc soppi la na doxalin. d'accord. moo tax bi. foofu la waroon jógee. maintenant question écrite bi lu lu normal la parce que jiixi jaaxa dafa bari ci wax ji. ci naka. y a tellement d'accusations dans cette affaire. xam nga xam nga tey nga limogé nit. du information. même su nekkee une semaine la du information. parce que pouvoir boobu président de la République moo ko moom. moom moo ko moom mooy fal au pouvoir civil et militaire il a domaine de nommer Adama Fall à huit heures et le de le dogomé à douze heures. maintenant nga nommer mu am ay presse yu ci jóg wax ci ne lii ak lii ak lii moo ci xew. commencer tirer sur la personne qui a été défenestrée. Ah waaw. dañ ko accusé. waaw ci affaire oto bi. waaw xam nga dañ ko accusé ci affaire oto 80 millions. Mm. am keneen ku bind ne surfacturation. Mm-hmm. mais rôle député bi. mooy lii ñuy wax mu leer mu leer. pour que ministre bi apporter des réponses par rapport au marché yi nga xam ni génn na ci mbirum inondation bi. Mm-hmm. au niveau de l'ONAS parce que mooy tutelle bi. Mm-hmm. loolu mooy rôle lu député loolu mooy rôle bon les gens me diront mais est-ce que ce député faisait ce rôle. j'ai dit waaw looloo looloo tax ma ne la. est-ce qu'il faisait le même rôle. non déglu rek. déglu rek déglu rek looloo tax ma ne la non Zeyna looloo tax ma la. moo ne Zeyna noonu la non attends looloo tax ma ne la. su mm-hmm. ko Guy Marius Sagna defoon moo ma gënal. pourtant Guy Marius Sagna def naa ay interrogation ci des contrats yi am non ce que je veux dire mooy bu ma ne def na def na def na mais man man man li ma wax mooy sur cette question su ma sañoon moom moo koy def. ok waaw non attends c'est-à-dire xam nga nag. xam nga nag xam nga nag xam nga nag. il n'est jamais trop tard pour bien faire. 12 mm-hmm. ans après. j'ai dit 12 ans après. l'importance mooy def na ko. il a mm-hmm. posé 12 ans après 12 mhm. ans d'opposition il y avait quelqu'un qui défendait les intérêts des travailleurs et on le voit plus défendre les intérêts des travailleurs eh, oui j'ai dit <laughs> non bàyyi ma terminer. ma suma gëm activisme lu dul ci Guy Marius Sagna. non loolu tax ma ne la. Ah. loolu ma ne la su ma sañoon man. Ah. dina ko def kon. su ma sañoon man. maa ngi su ma sañoon man. joxe na neuf questions est-ce que nekkul daf doon lijjanti yeneen financiers yi. non man su ma sañoon man sur cette affaire. Mm-hmm. parce que man nag je veux être avec moi-même ah. mm-hmm. d'accord parce que ci loolu lañ ko xam. ci loolu lañ ko xam. ci loolu ci question yooyu par rapport à la gestion bu leer ci lañ ko xam. maintenant nag un autre député le fait est-ce que rôle am la. le c'est la mission d'un d'un député. Mm. oui c'est la mission d'un député. mais euh, am na ci dara bàyyi pour man. da dama ne. li mu eh, wax lu am solo. Mm. lu am solo man dama koy saluer. Mm-hmm. xam nga soo ne sombee ma gënal fonde. wax dëgg yàlla suñ la ci condamné tooñ nañ la. Mm. am nga ci droit nga ne. j'attendais ça de Guy Marius Sagna plutôt que de Abdou Mbow uh-huh. je suis vraiment d'accord parce que moom tamit bëgg na Guy Marius Sagna poser question boobu noonu parce que c'est une question d'actualité internet yi nee yu mbind démb moom laa loolu laa bëgg fa laa bëggoon dem hmm. gis nga bërki démb hmm. man bi may ñëw je pense fii laa doon ñëw hmm. laa non bi may jóge fii laa gis euh, boobu maa ngi déglu je pense Sud FM pour ne pas faire de la publicité si defem na comme c'est des amis maa ngi koy déglu mu envoyé leen lettre ba ma demee tamit lire naa question yooyu noonu xam nga une assemblée nationale l'assemblée nationale du Sénégal compte 165 députés mm-hmm. mais 165 députés Guy Marius Sagna bu naree def loolu yëpp at bu bu weer jotee ngeen ñàkk de. mais maxu maxu maanaam bu ma bëgg je condamne pas la démarche je ne condamne non non non je ne condamne pas la hmm? déedéet dama ne waxuma. que moom laa bëggoon mu def ko parce que dama tiré ci moom. Ah, non non non non non non non non non c'est-à-dire moi je veux montrer cette rupture là. waaw ah. xam nga rupture wane na ni Amadou kii def na ko. waaw mm-hmm. ah. Abdou Mbow def na ko. Mm-hmm. parce que loolu aussi rupture la dans la démarche. Mm-hmm. les gens me diront c'est là oui depuis 12 ans oui. depuis 12 ans il ne l'a jamais fait. oui d'accord naa. mais aujourd'hui il l'a fait j'ai dit aujourd'hui il l'a fait c'est important. c'est ça bu ñu ko dàqee. non dégg tax ñu dàq ko war nañu ko exposé ci. non non non xoolal déglu ma la amuñu déglu ma la. non xoolal. Euh, euh, le de la République en son dans l' euh, uh-huh. maxu de la constitution. Mm-hmm. maxu le président de la République article 44 nomme à tous les emplois civils. article 45 mu ne tous les tous les articles. <laughs> comment les emplois mais xam nga loolu. dafa mu li Adama Fall wax dafa am solo. Mm-hmm. nee na. loolu pouvoir président de la république. kenn waru ci discuter discussion. Mm-hmm. Mm-hmm. c'est vrai que question yi bu jugee le député il est dans son droit kenn mënu ko na dindil euh, nu mu tuddati euh, Abdoul Mbow. des interrogations même su mm-hmm. fekkee. jiwriñ dina xalaat ne waa moom fu mu nekkoon ba yu gën a graaw yi am te waxu ko. waaw yooyu yooyu mais tout l'importance mais léegi. waaw il a pour man pour man Guy Marius Sagna gis nga <laughs> Adama. Eh. man foofu laa leen di ñaan parce que foofu laa soo am na lu ma lay ñaan. Hmm. gis nga Guy Marius Sagna man tamit comme yow ni nga koy xoolee après alternance est-ce qu'il va être constant noonu laa ko doon xoolee pour man pour man il a été moom xam na loolu il est même beaucoup bi al parce que soo xoolee. Ah. non daan na def décalé soo seetloo il ne passe il ne se passe pas une semaine boo xamante ni ju jëlul loxo du dugal ko ci góom bi nga xam ne Sénégal moom lañ am loolu Guy Marius Sagna xool ci euh, euh, liste euh, Yewwi laa bokkoon. Mm. xool ma ne Sonko moom ma investiroon. Mm. xool ma ne maa nekkoon directeur de campagne 2019 Ousmane Sonko. Mm. xoolu na sama xarit la xoolu na Diomaye sama waay la wax dëgg yàlla. Mm-hmm. lépp loo xamante ni Guy Marius Sagna moo ngi koy wax depuis que euh, euh, mu am al depuis mu am alternance. Mhm. pour man. Mhm. daf ko yokk. mi ñu ah, nga tàggatoo man sur cette que les gens soient cohérents te ñu comprendre mhm. parce que pour éviter ñu ne fan la nekkoon il y a moo tax ma ne la su ma sañoon. du nekk moom mu continuer que soo ma soo may jam ci li mu posé acte bi moom nga may jamee. mooy no bàyyi ba terminé. c'est-à-dire déedéet très bien non non non tu n'as pas compris. su ma sañoon su ma sañoon. parce que sama sañ-sañ laa waxaat te nit ñi war nañu ma ci mën a comprendre. parce que bëgguma dégg. Mm-hmm. ñu ne député Benno yi 12 ans après ils ne l'ont pas fait. Mm-hmm. ko dégg. mais dëgg mm-hmm. parce que su boobaa day nekk incohérence ci seen ci seen euh, li nga xam ne ci leen démarche. mais est-ce que du li assemblée bi defal rek non non non bul xalaatee foofu day nekk incohérence bi. mooy ñi ko daan posé démb ak barki démb ñu noppi woon ñu noppi ñu continuer di ko posé ñi noppi woon ñu noppi ah. mais li mu def lu ko war la uh-huh. d'accord li ko def mm. li ko war la te waroon na ko def démb ak barki démb uh-huh. def ko waroon na ko def démb ak barki démb ni mu ko defee nii mm. noonu la ko waroon defee démb ak barki démb lay jox benn kii bu ndaw bu kii bu ndaw rek laa lay ci olof olof dafa wax bañ na ñett waaw wax bañ na ñett mu jot waxoo ko mu ñëwagul nga fii moom fii moom wax bi dafa jot fii moom fii moom sur cette affaire la sur cette affaire là gis jàmbaar gis nga sur cette affaire là j'ai dit sur cette la nga ñëw ci plateau j'ai dit sur cette affaire là sur député yi dañ cee war a yëy yàbbi ci uh-huh. parce que dafa nekk sujet d'actualité te waru ko woon nekk non non non dama ne dama bëgg déglu ma dama ne waru ko woon nekk waruloon nekk sujet d' actualité lu tax ñu ko waruloon nekk sujet d' parce que combien de fois lañ ci wàcce nit nekkul sujet d' actualité. te la république. ba Macky Sall di wàcce Mame Boye ne la mu ne la cité de la constitution ne la président de la république moo am waaw sañ sañ loolu mun na nekk tontu même mu xool naa la wax lenn nga xool ko neexu ko. Hmm. parce que c'était président. mais tamit li ñuy tuumal Cheikh Dieng tamit dafa mérité ñu def ci taxawaay tamit. non xam dama ne li ñu koy tuumal je di pas moi am li ñu koy tuumal. mérité na parce que dañu toll ci réew moo xamante ni ce nouveau gouvernement a été élu dans le cadre. ñu am transparence ci suñu gestion yi nga xam ne mhm. ñun c'est ñun ñoo ko man défendre ma Cheikh Dieng défendre ma Cheikh mais il a il a il a répondu pour mhm. dire vrai mhm. Cheikh Dieng il a posé il a répondu hier j'ai lu le texte mais c'est un texte il faut nit ñi xam Cheikh Dieng Cheikh Dieng il n'est pas n'importe qui il a été major de sa promotion fépp fu mu jaar c'est un docteur li mu expliquer sur la lettre sur la lettre li mu wax moom sax pour man dafa teel a tontu mais li mu lettre lettre boobu tamit justifié wul affaire oto beeg yooyu. Mm. mais lettre bi ku xam am xam-xam xam na ci xam-xam la ko teg. Mm-hmm. dëgg la mi ngoog daaneel baal ma rek la réponse mm. de la lettre du ministre bu mu ko envoyé woon. Mm. d'accord mais réponse dafa ñëw après. fekk na daax nañ ko. tegal sa baaraam Adama Fall seen lettre très motivée. mais mais daal man li ma ci xam mooy. oui c'est une question boo xamante ni peut-être waruloon nekk actualité parce que c'est une décision du chef de l'État constitution bu Sénégal moo ko conféré mm-hmm. moo ko may te ministre bi mën na ci taxaw ci réponse Abdou Mbow mën na taxaw ci ci constitution bu Sénégal ne ko loolu duma ci discuter maintenant nag ñu moytu polémique yoo xamante ni par inutile par rapport mm. au limosage de de de d'une personne mm-hmm. boo xamante ni décret moo ko fal wala décret moo ko folli mm-hmm. ñu moytu aussi di wax ci ay sujets yoo xamante ne day yàq deru nit te te peut-être ah, amuñu ci benn dara wóoragul te dara wóoragul mm-hmm. Mm-hmm. nañ koy moytu mm-hmm. parce que Sénégal boobu foofu lañ toll te te délation baaxul délation baaxul nañ ko moytu donc c'est c'est un plaisir et puis c'est un plaisir de te voir tous les matins de voir Adama Fall te amul amul tàggoo <laughs> waaw oh, doy na. moo dama tàngoor bi ah. boo xam boo xam Adama. patron dafa am ñoo xam ne polémique Adama Fall la ñuy xaar de boo tàggoo boo tàggoowee ñu dem. Adama Adama kat fi mu ne nii xam nga patron am da koy woo nee ko na ñëw liggéey si. sa heure daa jeex récréation nga génnoon dellu ci liggéeyam. pourtant mënoon ngaa may nit ñi audience audience beeg de travail. bu leen dugg ci débat boobu. <laughs> Ah, est-ce que xam ngeen ne euh, kii Adama Fall euh, lundi lundi dafa demoon Bassirou Diomaye Fall da ko doon dara. puisque ñun ñoo àndoon ñun ñett ñoo àndoon. Ah. yéen ñaar yéen ñaar ñëpp déedéet dañuy wax ak askanu Sénégal <laughs> puisque ñun ñett yéen yéen ñaar da ngeen ma toppoon. Mm-hmm. te yéen a wax audience bi fii. Uh-huh. rendre leen compte internautes yi. du man maay rendre mais dugg ñu tibbutuma la ñam seen tànk sama tànk la woon seen mbagg sama mbagg la rendre leen compte askanu Sénégal. bàyyi mu tënk. Aliou ça ça ça la question million de dollars. <laughs> na. c'était un plaisir Adama Fall jox naa réponse bi tontu ko après tontu waaw. man dama leen faa bàyyi vous savez bi muy taw laa dem ñibbi ba leen. non président de la République doo dugg ci bureau di ko bàyyi nit dañuy waxtaan nag. waaw mais li ma ci xam daal mooy président bi moom du joxe paas ne <laughs> sama gars pour gars yi bañ leen a topp nag di leen laaj naa ne ana paas bi. <laughs> merci beaucoup Adama ah ba vendredi ak jàmm. incha allah nga a d' accord ah mi ngoog. <laughs> Euh, yaa ngi woon ci ah, euh, ah, ci ci yaa ngi woon ci ci docteur Cheikh Dieng parce dafa bari.